yegsi na fay say facture moo ci gën a gaaw jëfandikoo lii dégg jàmm yónnee jot xaalis bu gaaw te wóor kàppee la waaw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 xabaar yi lañu leen di baaxee tey ci aljuma ji yem ak ñaareeli fan ci weeru septembre ma di leen dalal jàmm bokk na ci lu ci gën a fës décision ga njiitu réew mi jël bees gannaaw ba mu defee ma du Badio kamara njiital conseil constitutionnel daañu ci delsi danañu leen faram fàcceel la juddu ci l'autopsie ga procureur santaane woon ci néewu Doura Diallo ak doomam ga nga xam ni ci anam yu doy waar la ñu ñàkkee seen bakkan tolluwaayu dossier ba ñeel koppar ga ñu luubaloon ca poste finance daañu leen ko xamal ci digg xibaar yi Diouf xamle ci Adji Raby dañu leen ci dikkal ni ñu koy defee saa su ne mbokk yi ngeen taaxirlu as lëf bàkk bët yëpp ma daal di leen koy yaatalal. mu ngoog bàkk ba jib na nuyu naa leen bu baax a baax yenn safoo di ñu ci dakaar Buzz dal leen jàmm ci xibaar yi. Doura Diallo moo di soxna sa ñàkkoon na bakkanam ca centre de santé bu Kédougou l'enquête ba nag ngay woy bu baax a baax ginnaaw bi ñu jàppee gynécologue bi di Léon Mbada Faye anesthésiste bi Abdoul Aziz Dioum ak infirmier bi Bakary Diakhaté ba placé leen en garde à vue procureur u Kédougou dafa santaane woonu autopsie ci néewu victime beek liiram bi démb ci alxames gi la ñu doon def examen ba ci l'hôpital régional Amath Dansokho kii di docteur Danfakha moo doon ko amal docteur ba nag la mu biral di ab mort par hémorragie interne ci Doura Diallo gune ga par strangulation l'observateur di xam ne ni procureur dafa fas yéene gën a xuus ci mbir mi ndax santaane na ñu déglu yeneen i yu ci mel ne ay gynécologue ngir mesurer niveau de responsabilité wu équipe médicale gi ñeel génnub àddina Doura Diallo ak liiram bi journal bi wéyal naan rek tey ci aljuma ji lañu leen doon xaar ca Kédougou xabaaru tiis lool moo fi wàcc ñeel génnub àddina Mère sa Dieng ñu bari ràññee woon ko ci série double vie mu doonoon ca yaayu Pape Cheikh Diallo donte toog yàggul dara sax la bokkoon ci série belle-mère ga doon dawal juma bu ne ca Sen TV lu ni mel nag jurub mbetteel ci askan wi rawatina rek ñamu doon liggéeyandool Dakar ba si bokk nakar wi ak waa këram ak képp ku di njege ñaaleem di ko ñaanal suuf woyof ci kawam sûreté urbaine tënk nañu l'enquête ba ñeel évasion Pape Mamadou Seck guddik juróom-ñeent jàpp fukki fan ci weeru juillet ca l'hôpital Aristide Le Dantec bu nu sukkandikoo ci les échos talaata gi di ñëw la yi a jébbal seen rapport boo moytuwulee danañu topp ci yoon garde pénitentiaire ya doon surveiller Pape Mamadou Seck ndax nee nañu seen négligence a tax mu daw Pape Mamadou Seck ña ngi ko jàppoon ci mbirum waa force spéciale ba mu rëccee nag fa ñu ko jëlee di rek daaru Karim boori Mbàkke xalima gaaj yi ñu bareen ko ràññee woon ci rôle googee mu doon joué ci série maîtresse d'un homme marié tuddoon ca Marème Dial loolee ubbiloon ko sax yeneen i buntu ca biti réew ay at a ngi nag mu nekk Côte d'Ivoire xalima jamono yi boppam di wax lu kenn xamul daan tontu ñenn ci sénégalais yi doon ko jugé mu daan wax ni rek moom gaynde la fi mu ne nii nag delsi na sela ko ñëpp xamee woon nañu ko ko doon ñaanale itam ci série gu bees gi ñu dippee la futur état nu fas yéene di daw Canal Plus Afrique Halima Gadji ji euh, yor fa rek rôlu abi kon naan njëlbeen épisode gi nag aljumay tey ji la waroon a tàmbali Mamadou Gaye altine la ñu ko jàpp ca Kalifouru foofu ca diwaanu Kédougou mu doon yóbbu 125 kilogramme yamba yu mu defoon ci benn ambulance centre de santé bu Colobane ñu defeere ko parquet wu kol ñeel trafic de drogue xibaar yi xam le ni ambulance gaa nga bawoo woon Medina fa jëm Ndakaaru ma Mamadou Gaye ba mu yegsee fa takk deri ne woon moo wàccal boppam doon toxal pulo ya fa ne woon ngir mu jaar jaaxal leen lool ci la ñu ko laajee la mu yëpp ak fa mu ko jëmee mu ni leen malade la yëpp bu mu war évacuer d'urgence Ndakaaru gendarme yi seen xel ñaaw ñu tàmbalee leerlu Mamadou ni leen bunt yi du ubbeekoo ci ginnaaw ñu ni ko na dagg moteur bi mu ni leen rek kon ambulance gi dootul tàkkaat ci noonee la takk der yi ubbilee seen bopp porte dal di am ci drogue bi ñu jàpp ma placé ko en garde à vue mu mujj wax dëgg gi libération di xam le ni dafa wax yi ne ay njiitam yëgul eh, di ca doxal ay mbiram saay bu ca noppee rek dal di koy gaare këram Matar Cissé ñaar fukki at ak ñaar dafa demoon commissariat wu Géejawaay ngir teg plainte ci ndoddi xaritam wi di Lamine Thiam nekk ab dawalkatu charrette eh, Matar dafa jiiñ xarit wi ne daf ko sàccal ay téléphone portable ci xayma lépp di fukki million ak juróom ak lu teg eh, takk der ya laaj ko facture appareil yi tàmbali di ko déglu ci saa si nag mu dagg déposition wam di jéem a daw ñu jàpp ko placé ko Cissé mooy sàcc bi te xaritam wi moo di complice Matar dafa tàmmoon di sàcc ay portable ci magasin wu nijaayam ca Colobane Lamine Thiam la daan ko jox mu di ko rawale bu mujj bi nag Matar dénk téléphone yi Lamine Thiam ngir bu ca jotaatee jaay ko benn receleur gu nekk waa xarit wa nag dal di daw ak téléphone ya ci la demee porter plainte bi ñu ko placé en garde à vue ñu woo nijaayam mu ñëw ca poste ba teg plainte ci ndoddi jarwaatam wi ci diggante bi nag da koo dàqoon ba nag tam ñu jàpp ko mu xamal l'enquêteur yi ne benn gambien gu nekk caaro yi la jaay téléphone yi si ñaari million te kooku benn million ak xaaj dong la ko jox teg si mu ni Matar Cissé da ko yoreel benn million ñeel receleur yi nag ka nekk Padoa ci magasin am la ko fekk jàpp ko waaye gambien bi moom ba tey gisaguñu ko ña nga di leen toppee association de malfaiteurs vol ak agression àllarba gi weesu la ñu leen defeere parquet bu tribunalu Pikine Géejawaay créancier yu mujj ya fayagul koppar nga ñu jëlee woon poste finance ci lu altine ngir ñu fay euh, lu ko mooy rek juge bu ñaareeli cabinet bi dana leen placer sous mandat de dépôt ci coowal détournement benn milliard yàq xaaj l'observateur moo di ñu yëgal ni sûreté urbaine ñu ngi ci ay tànki chef d'entreprise ak ay fournisseur te nee nañu bari lool sax la def journal bi wéyal naan ci crédit ya delloo bu ñu ko la ñu war a fay mi ngi nekk diggante 500 yëf yaa ngi siiw ba nga xam ne ni directeur général poste finance gi Saliou deniers publics ci l'enquête bi nag fekkoon nañu 1033 chèques yu tollu diggante 100 000 ba 50 millions euh, ci ay bureau wu Alex Manga may chef agence principale ga ak Abdoulaye Faye may responsable grande caisse ba ba placé leen sous mandat de dépôt directeur juridique bu société d'exploitation train express régional gi maître Yamar Samb daal dinañuy tekki ndombol tànkam euh, moom ci boppam moo yónnee naataangoom ya message yëgal leen ko ni ko libération di xamle euh, la ko président BAC DG wu SETER gi ngi lalu ci manque d'investissement ak solidarité active ci DG bi laata moo nekk directeur juridique bu SETER maître Yamar Samb moo ne woon secrétaire général ga journal bi xam ne ni sax moo bind contrat yu bari yu dox diggante nguur geek SETER Lamine Thiam moo di candidat wu kuréelu wàllu ñeel présidence su assemblée nationale Abdoulaye Wade moo ko tànn daal koy proposé comité directeur bu formation libérale ga ak waa wàllu ñu daal cay ànd nañu ko xamle Abdou Bara Dolly gannaaw déclaration nga mu def xamle na ni dañu biral candidature am te waxtaanuñu ci kenn xamle na it ni rek moom candidat la Cheikh Abdou Bara Dolly di wéyal naan pare na ngir taxawu candidat ba maître Abdoulaye Wade tànn bu dee ni rek joxe nañu ay argument yu ko jar teg si mu ni dafa war a gisee sax ak kii di maître Wade ci bés yi di ñëw Ndella Madior Diouf mooy àddu ci Adji Raby Sarr di wax ni Adji Sarr ñëwul ci moom waaye daal ci association femme juriste la demoon Ndella nee na bi mu waxtaanee ak ñoom dañu ne ko rek aji moo jékki saa rek toog bañ a tee ñëw bi mu ëmbee nag amuloon preuve moo tax jugul woon na taxawu ko moom nag nee nag mu gisoon na nit ku wann lor la doon ko niru mooy jamono yi nga xam ne rek aji defoon na conférence de presse ndax nee na nee na bu gisee jigéen ju wérul daf koy xam tànn nañu koy jiite conseil constitutionnel kookee nag du kenn ku dul ma Mamadou Badio Camara ma jiite woon cour suprême njiitu réew mi ci décret numéro 2022 15 73 bu 1er septembre 2022 daal dinay def Mamadou Badio Camara njiital conseil constitutionnel Maître Awa Dieye avocate à la cour ñu def ko membre conseil constitutionnel par décret numéro 2022 1572 bu 1er septembre 2022 nañu ko xamle ci communiqué de presse présidence de la république ex premier président wu cour suprême ngaa ngi fay wutu Pape Oumar Sakho ci diggu weeru ut gi la mandat wam nga yemoo ko juróom-benni at dal di woon na jeex Ahmed dara mooy xam xamle ni la ñuy wax bës si yëpp ci presse bi naan dafa joxante loxoog ñenn ci waa PS ngir ñu voteel ko mu nekk njiital assemblée nationale dara du ca dëgg député bi di meeru Géejawaay nee na waxul ak benn presse te kàddu yooyee dara amu ca teg na ci ne rek loole dañu ko defa dong ngir dox digganteem ak ay alliés ñu de rek ku jege askan wi nga xam ni da leen jox gëdd mbokk yi li la ñu tey ci xibaar fii ci Dakar fës daañu leen ko toppalaat ci lu ci gën a fës ba lëg incha allah. Sénégal ka fay kan ngi yegg si na fay say facture mu ci gën a gaaw jëfandikoo lii dégg jàmm yónnee ak jot xaalis bu gaaw te wóor.